años. Yeah. Prada. très joli. coupe carré la Abish moom ma ko defaral. Ah, ça te plaît. waaw ah, ça me plaît bii baax na. bàyyi ma def ci bii baax na bii baax na. <laughs> central bal bi central. waaw ah, bu jeex sama coiffure man man man entraîneur bi man def ma jaaxal. noo mënee gis ay joueurs yu baax di leen teg ci banc bi. ma dañuy jaaxal sama xol ko commencé ci nag waa kan mooy football ni Real. non sama benn équipe ba yow équipe bi xamoo ko. dooral. bay sama bopp bi c'est vrai de. yow yow yow doo seetaan football. c'est ennuyant. chaque jour football yow ay musique moo la neex. c'est ennuyant moom vraiment. Ah, man football rek laa mais bébé yow yow yow ay musique moo la neex. ah waaw <laughs> ku ci mel ni Waly Seck di man fi ma yóbbu dafa sori. waa gis nga Waly fan yi li muy tëgg kenn xamul nan la lii dafa ëpp il chante trop bien ba pare nag li ma gën a neex si moom mais il est très stylé mën sañse da koy teg ci temps. <laughs> mais yow yow noo mënee gis man sa man sa jëkkër man ma toog na may wax ci ay Wally Seck il est trop stylé il est ñañaña il est ñañaña ah yow lii respect la yow wax ma rek yow man yow noo ma yàbbi di ma ne ay di ma wax beneen góor. mais pourquoi tu t'énerves lan laa feex lu grave danga ma laaj kan mooy sa woykat xanaa nit bu nekk am nga star am nga koo bëgg sa xol. bu ma ko waxati bu ma ko waxati usal. kii kaful bi hmm. di jën ma la sax waaye daal fi mu ne nii moo téye Ndakaaru ku mu naqari nag moom sama yoon new ci lii laa wax ba leneen ñëw dafa mën a xale bi nag dafa dégg dëgg neexul fa mën waay mun def fi ma yóbbu dafa sori fiir ba dee moi rien compris door jou laten gaan. boo dindi sa casque yi waxal ma. pour lan. mais dama la soxla. Pulan lan la ma daay. dama la soxla. Ana da nga xamne ne bo boo da ngay gëna ciofé. Motax ngay def ni mën nga tek ordinateur bi ñu wax teg ko.

lu ma bett la ci yow ndax tay so mu ubbilee sa bopp yaatal ma ba lepp lu ma nakkari ma wax la ba lepp lu ma neex ma bok ko ak yow loolu daf may neex té chance boobu du ñëpp ñoko am si mo war réaction bi nga am jaaxal ma torop ndax soo ma laajee kan mooy sa chanteur préféré yow ci ma ko ne yàgg nañu ñaata at ñu ngi ko nekk tey nga laaj ma ko mais dinaa la wax ki nekk sama xol yow yaa ngi seetaan football am nga sa jour préféré pourtant comme ñeneen ak ñeneen yeneen jigéen ñi ni ñu amee actrice walla acteur préféré gis nit ki nag bëgg ko yàlla moo koy def ci xol. kenn mënu ci dara mais man dama bàyyi ñëpp sa la xooluma kenn gisuma kenn yow rek laa gis te man boo ma comprendre xaw ma kan moo may comprendre nga doy ma nag wéeruwaay lool donc j'ai pas compris ton comportement wala fiiraange rek la maak yow dañu mës a am esprit de dépassement

foo bëgg foo yóbbu la. ñu génn rek xool. Hmm. c'est sûr man xam la man vraiment soo yeewoo rek dana gën rafet xaw ma la. <laughs> merci. Hmm. Pero tu nyu jiho tu nyu boku bagun lena Non ye du nyu bai Me be nyu nyu jilen Nyo ko wa khon bo lena Nyu kholi tef ko ben Uri ala dole lu nyu Nyu ano sorry ben